alors li ñu gis mooy euh, ci Covid 19 bi am na ay action ay ay jumtuwaay yu euh, dëkk yëpp jëloon yoo xamoon ni tax na euh, ñu continuer njàng mi alors que situation bi metti woon na torop mais li taxoon ñu continuer njàng mi loolu bonne pratique lañ ko tuddee bonne pratique yooyu ñun bëgg nañ koo récupérer li sooxe mooy li nga xam ne lañu ñu yi génnee mooy euh, jàng bi dafa xaw a diis euh, li ñu sas euh, jàng bi xaw na diis ba suñu sañoon li ñu Covid bi mayoon ba ñu mën a jàngal xale yi ci contexte boo xam ne temps bi barewul xale yi peut-être mënuñu nekk classe tous les jours du bës bu nekk la ñuy jàng si naka la ñu def ba fexe ba egg ci résultat ya ñu eggoon naka la ñuy def ba jëlaat loolu càmbaraat ko gëstuwaat ci bu baax ba xool naka lañ koy dugalaatee ci système éducatif yi pour gën leen jëmale kanam xale yi gën a jàng ci contexte yoo xam ne euh, du ñu ne du jafe parce que jàng tamit warut a yomb mais euh, en tout cas dina tax ba xale yi dinañ mën a jàng ak xel ak dal jàngalekat yi mën jàngale ak xel ak dal mais loolu étude bi moo ko révélé